soit euh, ci sa arrestation parce que ça avait fait beaucoup de bruit la une des journaux euh, yaa ngi koy wax lu nekk wax nañ ko ci euh, ndax mën nga si dellu si waat ban bés la nan la demee fan la la fekk ak lu ñu la doon tuumaal waaw dañ ma doon tuumaal ne dama bokk ci association de de malfaiteurs ñu ne aussi dama doon comploter contre l'autorité de l'État troisièmement ñu ne aussi dañ ñu ne dañ ma accuser aussi de terrorisme ñu ne terroriste la mm-hmm. waaw man ñi nga ma jàppee Nabi Choucair. Mhm. Nabi Choucair lañ ma jàppee ma doon seeti un ami qui s'appelle Ousmane Seck mooy Ousmane Seck bi bekk bokk ci dossier force spéciale bi. Mhm. Euh, moom laa seeti woon mais malheureusement mu ñu gisante jour boobu ma taxaw ci arrêt bi di jël oto ci la foofu la ma gars yi fekk présenté wu daan may jàpp. noonu lañ ma yóbbee comme commissariat. Mhm. bi ñu lay jàpp euh, lu ñu la wax parce que Ousmane Seck bi ngay wax ni. Mhm. xëy na moom lañ amoon pour topp ko. Mhm. wala yow dañu doon euh, def filature aussi comme comme. waaw man dama ko en fait euh, dañ amul woon accès ci moom. ok dañ amoon woon accès ci moom ñu koy wër moom moom moom moom lañ taxoon a jóg. ñu koy wër mënuñ ko gis. léegi bi ma ko woowee téléphone ñu ne ah kon lañ lañ jéem a jaar ci Pape Mamadou Seck li ñu jàpp ko bi ñu ñëwee ñama dañ kër kër Ousmane kër Ousmane Seck fan la ma ne leen kër Ousmane sekk man xaw ma ko te jëmee témoin xaw ma kër Ousmane Seck. Mhm. ñu ne ma bon bu fekkee ne xamuloo kër Ousmane Seck après léegi dañuy dem commissariat dañuy dem commissariat ñu xool sa degré d' ci dossier bi ma ne leen ban dossier ñu ne ma bon lu ne bu ñu eggee di nga xam quoi ñu jàpp ma vingt heures ba deux heures du matin ñu monote ma. comme sa comment vulgaire euh, malfaiteur. waaw ñu monote ma monote après dañ ma dañ ma monote monote lu seere sax. après j'ai demandé à l'agent mu xaw ko yolamal tuuti noonu ñu traîner ak man traîner ak man ba ay deux heures du matin après ci lañ ma doog di yóbbu commissariat comprendre bu du woon Pape Ousmane Seck euh, mi nga Seck Ousmane nga doon seeti mhm. amaana kon yow tey jii nii tolof tolof bi doo doo doo ci jàpp parce que moom moo leen taxoon a jóg non kon kenn ma jàpp mhm. kenn ma jàpp ndax en réalité euh, ñoom nekku moon seen cible en fait. exactement nekku moon seen mais comme. li ñu naan vous avez été au mauvais moment au mauvais endroit. au ah. loolu sax la wax. Mhm. ñoom lan la ñu wax. léegi lan moo nekkoon sa relation ak Ousmane Seck moomu. non en fait Ousmane moom euh, moom euh, day def dafay def production miel. ok day def loolu lay def quoi en fait moom dafa am atelier au niveau. oui il est de passif en fait loolu moo tax sax suñu rapprochement yomboon bien moom moom en fait euh, loolu lay def activité bi activité bi intéressé ma mhm. ma ko man dinaa jaar ñu gisante ñu gisante après ñu jaar ci atelier am lañ jaar mu woon ma kees muy defar et tout tout tout bi xam nga intéressé ma noonu ma jógee foofu ci laa ci laa ci laa ci jaaruma sax këram quoi. ci laa mhm. taxaw ci arrêt car bi noonu la ñu fekkee. léegi yow euh, parce que c'est c'est c'est assez en fait maanaam mhm. yow. amul luñ fekk ci yow loo xam ne mën na nekk tuuma wala lu ñu liir wala transaction bu xaw a waar wala lu ni mel yëpp dara dara. non non non ci man dara arrêt affaire gis nga biñ ma njëkk a jàpp euh, agent de police bi dana ma indi ubbil sa téléphone loolu ma njëkk a wax. ubbil sa téléphone pour xool seen discussion xool discussion xool euh, groupe WhatsApp yi est-ce que bokk naa ci ay groupe WhatsApp ak yooyu mu xool mm-hmm. xool vérifier gisul dara. Mm-hmm. gisul dara xool xool xool gisul dara mu ne ma n'empêche dañuy dem. nii la nii la kaw demee. Ah, après sûrement li lañ la lañ la lañ la reproché. waaw lañ la toppee. et comment comment est-ce que vous avez accueilli ça wala moment bi nga ciy rendre compte que ne là la situation devient grave lan la woon exactement. non man man daf ma gën daf ma jaaxal parce que man bi ma bi ma bi ma jàppee yóbbu ma yóbbu ma commissariat euh, ma toog di xaar xaar xaar xaar après ñu def seen PV def seen accusation trois chefs d'accusation ñu bind deux sax lañ njëkk bind. deux ñu njëkk bind bi ñu bindee de de deux accusations euh, association de malfaiteurs complot contre l'autorité de l'État ñu jé après ñu ñun retourné waat récupéré waat documents yooyu yokk ci terrorisme. te amul lenn loo xam ne amul lenn ci yow. amul lenn loolu. amul lenn luñ gis ci man ñëw nañ même ñëw nañ sax sama kër dajji ko. pour xool ñëw nañ sama kër dajj ko xool ndax yar am naa fa ay affaire wala dara mais gisuñu dara gisuñu dara. après ça comment ça s'est passé. waaw ouais, après mandat de dépôt nga nga dem prison. waaw ouais, man j'ai fait j'ai fait euh, quatorze euh, jours de garde à vue. lépp ñu ngi enquête di xool lu ñu def ci dossier bi moo tax Sénégal moo tax Sénégal justice bi dañ ko war a xoolal bu baax a baax a baax parce que nit ki mënoo ko jàpp rek euh, amoo ci ma amoo ci moom ay preuves. nga nga dóor ko mandat de dépôt parce que la moindre chose mooy balaa ngay balaa ngay balaa ngay euh, jàpp ni di ko tëj nga am nga am au moins la moindre la la moindre de preuve nga doo ko nga doo ko jàpp mais Sénégal dañu lay dañu lay jàpp ba pare dem di wut ay preuve ci yow. sa jàkkaarloo ak procureur wala juge bi naka naka la demee woon. juge bi juge bi bi ñu demee bi ñu demee euh, ci ci ci moom dane moo bon lii leen lay toppee mais mais le mandat de dépôt est obligatoire. lii la mu parce que li tax mu obligatoire mooy euh, c'est des faits criminels. Mm-hmm. c'est des faits criminels yoo xam ne moom lañ lay moom lañ lay accuser mais en réalité amuñu preuve. Mm-hmm. mais n'empêche dañ lay dañ lay dóor mandat de dépôt. téye la la suite téye la fa doog a xool la suite. vous étiez assisté d'un avocat. si si na ay avocat amoon na ay avocat. mais mënuñ ci mënuñ ci woon dara. mënuñ ci woon dara xam nga que accusation ak yi nga xam ne moom la procureur visé moom moo tax. xam nga moo tax moo tax moo tax euh, moo tax gis nga les les pouvoirs du procureur dañ ko war a wàññi bu baax. Mm-hmm, dañ ko war a wàññi. Mm-hmm. parce que procureur Sénégal yàlla ji ndaw la presque. Mm-hmm. bu la bëggee tëj jàpp ta jàpp da lay jàpp bu la bëggee tëj da lay tëj te kenn du ci mën dara. moo tax certains sax dañuy dañuy dañuy def dañuy dañuy proposer ñu ne il faut il faut que dëkk bi am un juge des libertés am un ah il faut il faut ñu def ko parce que mënul ñàkk procureur mënu fi ne yow ku wax nga jàpp tëj et puis te kenn bu kenn ci mën dara mm-hmm. loolu aussi c'est c'est c'est c'est c'est c'est c'est c'est donc bëggoon naa xam un peu par rapport parce que aussi euh, ñu bëri euh, subir nañu ay euh, service ci biir kaso bi mhm. ñenn ñi ay torture pour ñu avouer ñenn ñi ay maltraitance yu ni mel mhm. comment comment ça s'est passé votre votre incarcération non c'était c'était c'était difficile parce que man haute laa nekkoon parce que bu ñu nee terrorisme moom c'est waaw bu ñu ma jàppee man haute laa nekkoon haute sécurité boobu man kese maa fa nekkoon dañ la beroon waaye dañ ma beroon man kese maa nekkoon pendant pendant quatre mois yoo xam ne bokkuma ak kenn man kese. isolé la en fait. waaw ba pare ba pare tere tere ma téléphone. quatre mois yëpp aw ma droit téléphone aw ma droit téléphone man kese toog moo tax man la sànq su ma su ma nekkoon nit ku nit ku oyof wala nit ko xam ne boppam dëgëru da ngay da ngay dof. c'est parce que loolu nga waaw sans sans sans téléphone ni rien. ku dul woon sama jabar doon ñëw foofu gis ma am amul amuloon amuloon droit de visite. Mm-hmm. et et et da nga doon liggéey en fait maa ngi koy wax. vous ñu xëy teg la loxo njaboot gi féete ginnaaw. Mhm. Euh, j'espère que sa sa sa revenu bloqué bloqué wuñ ko woon ak say compte ak yu yu yu ni mel. compte bi dañ ko dañ ko bloqué woon dans un premier temps. après ci nekk di di di di lijjanti di lijjanti ba ñu ba ñu décanté situation bi. Mhm. waaw mais mais mais en boo boo boo liggéeyul boo liggéeyul sa avantage yëpp gars yi dañ ko arrêté dañ ko mhm. arrêté donc li nga doon am ak euh, bu ñu la bu ñu la jàppee liggéeyam bokkul. mënut a yem <laughs> mënul ah, yem. Euh, kaso bi. parce que dañu dañ ca teg peu de temps après ñu ne da feebar. Mhm. on a on a parlé de d'une d'une maladie bu la yóbbu pavillon spécial. Mhm. Euh, foofu aussi euh, lan la quatre mois isolation yi isolement yi moom moo la euh, feebar wala loo doon traîner la soxla woon ay soins jotoo ci comment comment ça s'est passé. loo en fait man bi bi ñu ma jàppee dama bi ñu ma jàppee dama amoon tension tension moom moo doon sonal. Mhm. tension noonu parce que ñàkk nelaw bi jóge ci élection yi et tout tout loolu surtout ak pression bi nga xam ne la la ba ah, voilà léegi de bi ñu a c'est vrai hmm, hmm. c'est vrai mais actuellement alhamdulilah maa ngi sant yàlla bu baax. Uh-huh. léegi sa sa sa nekkin pavillon spécial nga baal ma ci retaan ah, mais foofu la affaire commencé. Uh-huh. parce que foofu lañ jékki-jékki rek. Uh-huh. Euh, ya avait plus rien. am ñu ne da nga évadé. ñenn ñi ne sa sa sa waa parti moo ils s'inquiétaient légitimement aussi. ne gars yi dañu ko sàkkal pexe dañu dañu ko nëbb. foofu bëggoon naa xam tuuti. les sénégalais veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé. en fait euh, euh, li xewoon lu yomb la ñoom nag. ñoo politiser affaire bi. ñoom ñaan régime bi. régime bi. Mhm. ñoo politiser affaire bi wax ci wax bu ñaaw bu nekk lu nekk détaillé nañ ko ci ne waa ji dafa dagg giri dafa lii dafa laataalu ko dara mu ci dara mu ci en fait ñoom ils n'ont pas fermé la porte. ah oui ah oui pas fermé la porte xam nga. Euh, loolu moom la wala c'est fait exprès. mais xam nga. xam nga ñoo bàyyi porte bi noonu. waaw un prisonnier aussi dangereux. qualifié de criminel terroriste ñu bàyyi porte bi noonu. xam nga xam nga li gën a garaaw euh, li gën a garaaw li tax ma def ko point yi niñ ma jàppee. parce que man waaw man dama jàpp ne man dama dund injustice jàpp nit toroxal ko euh, wax ko waxal ko lu bon accuser ko sans preuve. Mhm. yaa loolu c'est c'est c'est c'est c'est triste c'est triste. loolu moo at moom moo tax ma ma def loolu. mais porte bi ñu bàyyi noonu nañ taxaw tuuti. Mm-hmm. parce que loolu aussi bu bu nekkoon ci benn fiction mën nañ ne ils l'ont fait exprès. pour mm-hmm. bëgg nga génn ñu topp la xëy na xool ba xam am nga ay complice. Mm-hmm. wala daa am foo leen di wala ñu la pexe sax yàlla rek xam après na def bëgg na rëcc. donc sur le coup réfléchiro da nga emprunté porte bi daal di génn. waaw ah noonu laa def dem sama yoon. sans être inquiété. noonu laa def dem sama yoon dajewoo kenn. non non. parce que on da nga am ay complice da nga dagg gris. non non amul benn complice. amul benn complice kuñ ko tudd rek tooñ dañ koy tooñ amul complice. vous n'avez pas réfléchi da génn rek dem sa yoon. mais sur le nga les les conséquences. non en fait moment boobu man lu ma su xola su ma su ma ñàkkoon sama bakkan sax damay damay damay damay damay dama ciy sant parce que man bëgguma injustice bëgguma ku ma jaay doole parce que euh, euh, li gën a garaaw mooy mooy toroxal nit en fait man dama ne man dama man ñii en fait dañu jóg pour toroxal ma. yaa ngi dégg. Mhm, mhm. dañ ma jàpp kon dañ ma jàpp ci nag sudul noonu kon dinaa mhm. génn ci nag sudul noonu. loolu kese la. léegi yow porte bi naa xam un peu euh, ki ko def identifié nga ko xam nga ko. non non non infirmier la non non non xaw ma ci kenn est-ce que vous étiez ma ci kenn xaw ma ci kenn gisuma ci mm, mm. a pas mm. def war nañ ko mën a mën a xam bu fekkee ne bëgg nañoo xam kan kan la en fait. waaw bon am ñi ñi ñi ñi woon jour boobu boo gars yi woon nañ leen infirmier wala ay ay garde ay garde ay garde ok ah, boobu gars yi woo nañ leen xam nga sanctionné leen affaire yooyu bon loolu laa ci mujjee xam quoi. léegi bi nga génnee. Mhm. Euh, loo def. Mhm. qu'est-ce que vous def ma dara dama génn dama génn dem dem euh, dem euh, sama kër après jóge sama kër. vous avez eu le jóge sama kër dem Touba. waaw ah. jëm nga contacter kenn ku nekk Pastef sa xarit yi sa. non non non contacté ma parce que am na ku ma ne. il a même essayé de d'entrer en contact avec Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko n'a pas n'a pas décroché. non non ay sos la <laughs> ay sos la en ñoom euh, dossier bi Ndiaye gouvernement bi euh, Macky mhm. daf ko créé woon. de toute pièce. da ko créé de toute pièce. créé ko juste rek pour salir dara Ousmane Sonko. kese kese kese ko jege en fait. jaar ci ñu ko jege créé kay dossier dossier terrorisme ak euh, dossier commando yooyu yëpp. dara taxawu dara taxawu ci. c'est des yoo xam ne c'est des. parce que man li ma jaaxal mooy euh, nañ la euh, qualifié de terroriste. Mhm. de criminel nga génn pavillon spécial am temps dem sa kër. Mhm. jógee Dakar dem Touba. Mhm. te rien du tout. cavale bi ñaata jours la durée. parce que il a fallu du temps balaa ñu lay ñu lay ñu lay yaa ngi doon génn Dakar tranquillement non noo génn Dakar déguisé ci scooter oto. parce que say photo mi ngi woon fépp. waaw donc am na ñu naan buñ la jàpp dalee na neex en am na luñ luñ luñ doon xaar. Mhm. non non non non peut-être mënuñu woon mënuñu woon jàpp quoi. da nga da nga da nga da normal nga demee nii kenn reconnaître la. kenn reconnaître ma. et à Touba comment ça s'est passé foofu la cavale bi jeexee après. on a eu des images déjà même c'était à dénoncer parce que tamit euh, dañoo atteinte la en ci ci ci mhm. honneur nit. ñu wane la nii gars yi teg la loxo. aussi foofu tamit lu bëri wax nañ ko fa. Mm-hmm. non en fait euh, loolu euh, gendarme yi ñoo ko def. ñoom ñoo la photo. gendarme yi ñoo ma photo amuñ ci droit.

waaw c'est moo ci dëgg lu ci dul lu ci dul dëgg. waaye ñoom kay en euh, li ñu monté bari na quoi ñoom moom li ñu monté bëri na quoi. Mhm. li ñuy wax lu ci bëri dara du ci dëgg dara du ci dëgg. Mhm. après après arrestation bi. Mhm. Euh, deuxième bi laay wax. voilà def nañu conférence de presse wax ko wax comment ça s'est passé expliquer nit ñi. après nga delluwaat. fan pavillon spécial. wala wala pavillon spécial laa delluwaat waaye. nga dem ñu renforcer nag sécurité sécurité bi. waaye noonu la demee. léegi euh, parce que. xëy na bu dul woon euh, apaisement bi am. Mhm. wala euh, climat bi am gars yi bàyyi lu bëree bëri. Mhm. sa avenir doon na doon na incertain. parce que li ñu tegoon sa ndodd bëri na benn. Mhm. ñaar aussi ñu dolli ci délit délit d'évasion bi. yooyu yëpp aussi. est-ce que noo noo ko doon dundee. avec philosophie ah man en fait regretté wu ma ci dara parce que combat moo tolloon foofu. c'était à refaire koy defaat. waaw dama koy defaat regretté wu ma ci dara dara dara parce que combat moo tolloon foofu dañu parce que dañoo mën a affaire ak euh, koo xam ne en réalité. bu ñu xeexul ak moom du ñu abal. Mm-hmm. du abal il était il était prêt à tout pour conserver le pouvoir. Mm-hmm. loolu moo tax nag ñun aussi ñu am suñu stratégie am suñu stratégie fexe fexe fexe ba mu abal ñu. te gis nga condition yi mu demee. waaw léegi euh, après loolu du jour au lendemain ñu xëy. voté benn loi si mm-hmm. euh, ngeen commencé di génn kenn par kenn. Euh, bokk nga ci. bi nga bi nga bi nga génne comment vous sentiez-vous épuisé. gagné par la maladie. Mhm. mentalement mhm. naka naka nga dundee moment yooyu. waaw man dama génn rek pratiquement feebar ah. mhm. parce que on a parlé de ça dama génn rek feebar feebar bi jàpp ma après ma amee amee sax anémie sévère après sama maladie dama am beneen feebar anémie sévère moo ma dal ci moo ma dal. ba ma hospitalisé suma assistance yàgg naa fi trop. def naa fay 15 jours après ci lañ ma doon ma may deret ak yooyu yëpp. j'ai vu ça aussi pour ma pour ma pour ma revenir euh, normal quoi. Mm-hmm. et ak suivi psychologique bi aussi. yaa ngi koy wax sànq il fallait être fort pour dund loolu loolu. non non non non non en fait ñoom ñoom euh, gouvernement Macky Sall boo amul woon boo amul woon boo amul woon boo dëgërul dëgg da ngay dof parce que li ñu doon teg nit ñi euh, ku dëgërul rek doo mënoo ko supporter. Mm-hmm. mënoo ko supporter mais damay profité di wax aussi gis nga gis nga sànq wax naa ci ci les pouvoirs du procureur. Mm-hmm. mais aussi les juges d'instruction. gis nga euh, sama avocat. demande na deux fois liberté liberté provisoire ci koo xam dafa feebar ah koo xam dafa feebar mu demande deux fois deux fois liberté provisoire mu dem ñu rejeté ko. loolu c'était avant l'évasion wala après. c'est après. uh après l'évasion c'est après ñu rejeté ko. mais est-ce que est aussi doon doon doon nañ ko ko may surtout ak ak ak génn bi nga ni nga ni woon. non dañuy ragal que ne parce que liberté provisoire dañ koy jox koo xam ne am na ay garantie que ne. du du leen du leen rëcc. te yow ne ko nga wax nga ko léegi nee nga injustice la woon et si c'était à mhm. koy defaat. Mhm. donc foofu noonu mën nañu ko même si si à la base. Mhm. incarcération moom injustice la. mais après li xew xëy na gars foofu lañ doon xool. mais ak am droit. bien am. Euh... la personne elle est innocente jusqu'à preuve ouais, du contraire. elle, elle, elle ouais. est innocente, mhm. innocente mm -hmm. parce que instruction nga nekk. exactement nga nekk. Mm -hmm. loolu donc mu mu mu moo tax. Euh, ah merci allez-y mhm. mhm. voilà moo moo tax moo moo moo tax moo tax euh, dama doon lancer un euh, pour détenus yi nga xam ne ñoom ñoo nekk au niveau des prisons. Mm -hmm. que juges yi gën dimbale. procureur aussi di leen dimbale bëri na ñoo xam ne nii ñi ngi ci kaso bi ah kenn mënu leen bàyyi juge mën na leen bàyyi mais bu ñu demee day bañ. Mhm. te ay te dafa ñoo xam ne dañu feebar. feebar am ay problème et tout tout mais seen seen dossier du avancé day neex procureur rek mu xëy ba leen neexu leen du leen bàyyi. Mhm. ñoo xam ne def nañ fa ay 3 ans ñii ay 5 ans loolu aussi pas du tout normal.